li ni mel lépp daal di daje si bile bërëb bile canal bu nekk si biir capitale bu Sénégal fii la ndoxu taw yu jógee ci zone de captage ak ay koñ yi ko wër di teer saa su nekk mu nekk li nga xamante ne dafay jur ay inondation saa su nawet jotee loolu waral ñi dëkkee bor boobee daal di rek ànd ak tiitaange ginnaaw rek bu ñu jéggee saison de pluies bi. ah nawet bu jotee kay ñun suñuy fiti yëppay dem. ndox mi moom suñu biir yi lay toll ñu yóbbu suñu doom yëpp dénkaane nañ leen. yàq de yàq suñu liggéey. ah bu tawee duñu génn dañuy xuus. dañuy fay saret ñuy jéggi léeg-léeg duñuy sax xëy liggéey nawet bu ñëwee dañuy tiit duñu mën a dem fenn dañuy mujj obligé toog si biir kër gi ak suñuy doom. ndox mi fii la mën a daaw tuuti ndox mi yóbbu ma. ñenn si ñu fa yeewoo nag am njort gu rafet ginnaaw bu ñu daal di wee defar bi les ponts ñu jàpp ni que ren gii duñu dundaat li ñu daan dund si at yi weesu. yaakaar naa daal bu dee am na machine yu koy pompe mu jàll inondation boobu ci problème kanaal bi mën naa wàññeeku. ba tey nag mi ngi chantier pareegul mais yaakaar naa ne nii nii moom am nañu xel mu dal nii. bu ndox mi ñëwee moom du fi taxaw moom. waaw ren moom am nañ yaakaar ne moom wax dëgg yàlla moom euh, du demee noonu ndax daaw rek biñ koy defar pareegu rek wax dëgg yàlla ndox mi moom macha allah tane woon na uteeg année yi passé daal. waaye nag ñeneen ñi daal di jàpp ni que donte ne sax que ñoo ngay defar canal bi waaye nag am na lu si manqué te nag mbir mi dafa xaw yéex. liggéey nañ ko ba pare bassin bi dafa gën a tilim xam nga. salda yaa ngi nii waaw booy fi lañuy dugg di foo di fi def lu ne